jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen nu ñu koy defee saa su ne ñu ngi fii nag ci Cambérène quartier bu ñu naan quartier déggoo ñu so ñëw seet si fi koo xamante ne macha allah bokk na ci xale yi nga xamante ne diggante daaw jéeg ak daaw ak ren mu ngi def carrière bu am solo ci làmb bëre dóor rawatina bëre simple bi nga xamante ne saa suñ duggee ci sat Iba wala gaal gi mbaa Adrien gis ko fa. muy booy bawal booy bu dóor dóoraat booy bawal bu Cambérène booy bawal booy bawalu Sénégal booy bawal maa ngi lay nuy maa ngi lay delloo nuyu Baye Jili di la siyaare wër di siyaare waa wasaare làmb ñëpp di siyaare waa Cambérène xam <laughs> ak waa Parcelles Mbawar yëpp di nuyu waa Dégona surtout koñ ma dëkk quoi nuyu sama gars yi Mouhamane Zarko Oumy Thiaw ak Asu maa leen di bëgg baax ak koñ bi yëpp. booy bawal ñaata combat nga def arène. booy bawal def na huit combat arène. Mm-hmm. ñaata victoire. am naa ci six victoire. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaata défaite. deux défaites. kan moo la daan. Euh, Issa Lafu moo ma daan. ak Paate Boy. noonu la demee. nga daan kan kan. man ma daan teem ak si bu Grand Yoff. Omar Fall numéro 2. Zéro Fët. Boy Jonnu. Albarga Kayre. Zal Bambay. Zal Bambay nga mujjee bëre. moom laa mujjee bëreel waaw. waaw la 15 décembre. Mhm. ndeysaan ngeen bëre bëre bu metti yéen ñaar waaye bëre bu neex nga daanee ko ci biir bëre da ngeen a wuree yéen ñaar ba nga daan ko noo ko daanee. waaw dañoo wure rek xam nga te bëre moom dañ ñu wure la wure bi yàggee rek lépp feeñ mm. te bi mu may kal maa ngi koy xool suuf te maa ko sut moo tax ma wéeru ko ànd ak moom mu tegewet quoi. mu daan ko mu daan ko waaw. da doon daw mbot bi de. waaw doon na ko daw de <laughs> doon na ko daw xamoon na ci kawam la jëm mm. mais yaa lu mu yàgg yàgg rek ci wetu mbot ga la daanoo rek. waaw. sa wet gi daa mel ni mbër yi dañ koy daw kooko ko seexal mu bañ. ah waaw parce que sama premier combat arène mën naa def na un mois top un. mën a teem si bu sama combat ak boo jon mu top 2 la nekkoon yàgg fa te loolu lépp ci wet gi la génne moo tax. <laughs> moo tax mu demee noonu. nga wóolu sa bopp moo tax mbër mooy bëreel may ko tànk. no man xay naa bëre bi sax des fois moo ma yegg foofu mais du ma maye tànk. mais est man jàpp naa ne képp ku may bëree dama lay daan parce que man noonu laay bëree loolu laay gëm amaana sax ba daanu. Mm. yaa ngi. Mm-hmm. lan dugal ci bëre simple bi. bëre simple moom bu ma dalee bëre ba léegi maa ngi koy bëre. déw ma ba bëre combat arène di ko doog a bëre déedéet parce que dama si àll bi di bëre ba nii may waxee dama dem si àll bi bëre. Mm-hmm. yàgg nga cee gañ ay miss. waaw gañ naa ci ay miss wax dëgg fa yàlla gañ naa ci miss gañ naa ci nag gañ naa lépp. parce que dama doon def raw gardu xam di si raw gardu beneen laa ko mos a ñàkk final après ma jóge si loolu noonu def tànk. Mhm, def tànk ak poids noonu la demee ma ñëw fi bëre Dakar poids léger am fi ñaari kii après gars yi peese aj ma poids lourd quoi ba nii noonu la demee waaw. moo tax mu dugg ci lourd. waaw moo tax mu dugg si lourd te ma gëm ne mënuñu ma <laughs> ndax ku ma si jàppanteel rek boo waree xam naa da nga naan garabu tooy moom <laughs> waaw. loolu neex lay goo ci booy bawal ndax seetaan naa Adrien Senghor bu ma fekkee paka bu mbuur moo la waaw mais yàgg naa fa neex la ci ay luur waaw waaw yàgg naa fa neex la ci ay luur de keroog paka daan na ma fa loolu am na mais yàgg naa fa neex la ci ay luur bu baax a baax sax <laughs> waaw. noonu la demee de. démb association des promoteurs woote fee stade Mar Diop. nga dem ba quart de finale ñu daan la ku la daan. kii ma daan Elimane Diouf Elimane Diouf moo ma daan. xam nga ko. waaw xam naa ko nii si làmb de wax dëgg yàlla xam naa ko de ci làmb waaw. ñu la daane non daf ma jël daf ma daw takk xam nga te bi may daanu sax dama jàpp ne maa ngi ñoo mais arbitre ni ma yaa jiitu si noonu dama ko doon mbotti fekk may daan di ma takk di ma xar ma koy mbotti ñu ànd arbitre ni ma yaa jiitu noonu la demee. Mhm. promoteur yi bi làmb ji saison bi ubbee ba léegi. benn combat nga bëreegum bokk nga ci ñi ubbi saison bi bokk euh, ba léegi ñu ngi lay contacter wala déet. waaw ñu ngi may contacter moom wax dëgg fa yàlla ñu ngi may bu baax mais xam naa amaana ci gars yi la rek man moom taamu wu daal li ma laam boole rek laay bëreel quoi dem sama yoon. comme ñan. non comme tu ma ko tudd tuddati ko xam nga tey si tey mbëri sax ba bërki démb rek loolu laa wax boo leen toppee nii di leen laaj laaj day mel ni leneen la instant bëggatuma laaj benn mbër. billaahi wallaahi te du. boo laajee lu raisonnable ñu xam ne kii ak Boy Baol ay adversaire potentiel la da ngeen di bëre mais boo toogee fii di di séntu mbër moo xamante ni mbër mu mag la ci làmb doo bëre. mais tey su ma nee loon Sall Baol bi Igri Rëbës mën nañ bëre man ak moom. Sall Baol waaw combat bu neex la. mën nañ bëre man ak moom combat bu neex loolu amul sax demal digal ñun suñu morom yi nañ bëre suñu biir. moom xaw ma lu muy daw nag xaw ma liñ bëre woon maram muy daw xaw ma nag. non mbapat lañ mos a bëre Iba Mar. ku daan mais pare naa pour bëre moom nii daal. mën naa la yemal ci kooku noonu. boo amul kooku. su amul kooku xaar gars yi rek parce que xam am bu lépp yi sës xaar man bàyyiwuma benn mbër xel. nañ ñëw nu bëre samay morom ñooñu noonu ma wax ni den mën a ñëw nu bëre moom na ñëw nu bëre rek moom. écurie bi nga nekk muy écurie dóor dóoraat bi saison bu ubbee ba léegi neex la daanaka sorti ñu def yëpp dañ ko perte ñaari combat lañ ci gagné muy sa diggante yow sa combat ak combat booy ñang mbaalo yeneen combat yi wala. waaw Tigo Tigo bëri na fa moo daan benn booy bu naan Tigo bëri na fa moo daan waaw noonu la demee loolu la yàlla dogal mais ñu gën a defarwaat rek saison bi langagul après loolu noonu mën nañ ko dindiwaat lépp ba mu set su billaay parce que loolu daal ay cuune nekk ñu fa quoi ay mbër ñoo fa nekk tamit moo tax. na gars yi góorgóorlu bu baax. ñu séem ñu jéem a effacé loolu noonu. noonu la demee te xam ne daaw jéeg ñun ñoo ko gagné woon kon ren ren war nañ ko mën a gañewaat quoi. daaw jéeg yéen a ko gañe ren yoof jël ko daaw daaw jéeg ngeen gañe daaw kon Euh, écurie Yoff moo ko jël ci yéen ren fi mu toll nii compétition bi moom wane goo leen xar kanam bu baax. no gars yi ñu ngi ciy liggéey dañuy waxtaanaat rek taxaw ñun ñëpp ñu réunion xam nga te sunu mag yi rek ñoom ñëpp ñu ñëw si école bi entraîné si quoi mais bu ñuy jëmee fee ñuy jëm fee école bi du neex. mbëri mag yi nekk ñoo xam ñoo suñuy gannaaw dañu doon ci école bi ñëpp di entraîné ñu dajaloo comme noonu war a dajaloo bu baax mais xam nga tey boo demee écurie fekk woo fa ay nit wala yii mbër nga fa fekk yee kenn sa ruq neexul quoi dañu war a ñëw ñu booloo ndax mbooloo mooy doole. kon gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi bañ a ñëw mbër yi. non parce que mënoo boo ñëwee tey suba doo ñëw xam nga la nga toog lu yàgg doo ñëw mooy loolu. Mm. mooy loolu dañ na ñëw daal ñu entraîné pour équipe ñu xama ñu xam équipe bu baax ban équipe lañ yor ñun équipe bañ a suux. Mm. waaw parce que am loxo day suuxal équipe yi da koy deewal. Mm. waaw dañu équipe bu baax lañ yor billaahi wallaahi. kenn ku ñuy Garga 2 moom gisaguma ko ci école ba ba léegi dafa mel ni ñëwagul. waaw Garga 2 amaana xam naa daa muy góotee rek ñoom ñëpp la ñu war a ñëw ñoom góor a soog ñoom ñëpp góor a soog sax des fois moom mi ngi ñëw école ba ñuy contact wax dëgg fa yàlla garga moose tamit yaakaar naa tase nañ fa ay ñaari yoon bi mu jugee daa su nekk léegi hmm. su ma juumul hmm. mais nañ ñëw rek ñoom ñëpp ñu booloo booy suñu leen di gis booy dañuy kontaan ñëpp ay ñëw hmm. mais leen bu leen booy ñàkk gis moo tax booy ku ne dugg fee ku ne dugg fee rek yee noonu la demee noo gisee làmb fi mu toll nii ci bëre simple bi ak bëre door bi làmb jógee na stade Iba maar Diop yóbbu nañ ko arène nationale arène nationale ak Iba ban moo gën a neex ci mbër yi. waaw pour man de ñun mbër yu ndaw yi Iba Mar moo gën a neex si ñun. te tamit arène nationale neexul soo jëlee oto boo ñibbi arène nationale la nga fay dem boo ñibbi da ngay dox ba rond-point Canada géej waaye nga doog a mën a am taxi. benn taxi du la yeb foofu noonu billaahi wallaahi yaa ngi comprendre isaat Iba Mar dafa neex dafa am ambiance da ngay jege mbër yi ngay bëree da nga leen di jege nii xam nga ba pare neex na dem neex na ñëw. arène nationale lañ jëm nan dem rek góorgóorlu mais promoteur dina tëgg mbër bu nekk de yaakaar mbër bi amul mbooloo tam fekk mbër bi jàmbaar la mobilisé na ba dee. waaw parce que ndawul ndawul foofu boo xoolee da ngay xam ne lii ndawul dafa rëy. billaahi noonu la demee ah mais yàlla baax na rek looloo fi sos loolu la ñuy def force. waaw ku ñu xaaree moom da ngay xaar dem jiitu ji rek. yaa noonu la demee. samedi bi passé ñëw nga Iba Mar. samedi bi passé waaw ñëw naa Iba Mar combat bi ñëw naa Iba Mar. kan ak kan a doon bëri. Ada Fass ak bébé Bismi. noo gisee combat boobu. ah man de Bébé Bismi dama koy xam nga encouragé rek di féliciter Ada Fass. Hmm. di ko wax ne bis mi rek mu dem entraîné na waat man li ma gis mooy na yokk entraînement man sama gaañ la sama nit la. Hmm. yokk entraînement man yokk doole man loolu laa gis parce que bu waru woon sax demee nii kuwaa pour man. Hmm. ak bis mi nu mu mën a bëree man jël dafa ma bett man maa mujjee ñibbi si stade fi ma taxaw billaay wallaay jël ma bett dama voyagé woon mais noonu laa jógee dem stade tout droit. dama am lu ma métti fi ma taxaw mënu ma sax ñibbi. wallaahi. ñi analyser lamb yëpp nee nañ daf ko dafa ñeme Ada Fass avant lamb waaye bi mu ñëwee ba arbitre sifflé daa wane beneen Bébé Bismi bu ñu xamul. waaw xam nga tey lamb mën nañ la nuwaayee ci benn côté mën nañ la nuwaayee ci musique nga dem ba si biir xam nga yow dootoo bàyyi xel sax nu mu demee mais Bismi daal na gën a bu om laa koy wax man rey boppam waaye dem ci dini boo xëyee suba dem saal bari sëñ boo ko jàppoon noonu un mois bis mi ndawul waaye bis mi non bis mi wul sa bëreeg ñi. gis ni combat bi da cee ñàkk doole. non bis mi non affaire dafa. li ñëpp gis rek li ñëpp gis ñu wax en tant que koo xamante ne day suivre làmb bañ far bañ a wax. parce que loolu laa parce que booy bi bi mu ñëwee man faraluma booy bi waaye tey tey mel na noo xamante ne am na ñoo xam mën nañ sax. ni ah xoolal kii ni toll wala kii ni mel. Hmm. xam nga lu la wax moo tax làmb entraînement la ba pare avant tout amul leneen. ku ñu entraîné wul wóor na yàlla da nax sa bopp te defet dafa metti defet dafa metti bismi dafa war a xam ne loolu mu dem yéeg ci dindi suba mu xëy dem saal man loolu laa koy conseil jiyaat ci lamb la bokk lamb xam na ko ba pare na lijjanti loolu rek ñëw bëre daan ñibbi. ci sa génération la bokk fan la Ada Fass jëm. Alobas a ah, Alobas de instant yi mun xam nga xëy na am na ay nitam yoo xamante ne staffam ñoo koy wutal yoon. yee noonu la demee. waaw ah, yokk na beneen jéego ci kaw. waaw yokk na beneen jéego parce que Alobas moom kum bi rek jéego lay doon ci kaw parce que yàlla defal na ko loolu quoi. kum daan rek jéego lay doon sa kaw jéego mu mag sax. wallaahi noonu la demee. bëgg nga sa combat yaa ak Ada Fass. ah Ada Fass du ma ko tëkku. wax dëgg fa yàlla du ma nekk fii ko tëkku moom loolu na ko gars yi xool ba pare rek. promoteur seet si woon loolu làmb ju neex la Boy Baol Ada Fass. boobu yóbbu ko arène nationale. dañ digg géew. amin ñaari mbotkat lañ de. loolu bu amee. non loolu mënul nekk sax xam naa ne ndax xam naa dina am dawante dina ci am waa. day leex ba bopp. non dawante dina ci am. daw dina ci am yàlla baax na waxtu leneen. Ada Fass mi ma gis te sëñ ba sëñ Bas waaw. Ada nu ma gis yaakaaruma ne dina dawal mbër. ah loolu baax na <laughs> ba booba rek ba promoteur woonu rek. incha allah waaw gars yi bu daw di am doo daw yow. man ci làmb gisuma ci lu ma ciy daw rawatina benn combat dóor man li métti ci man mooy bëri simple mais benn combat dóor def ma muy dara. damay bëri ba quatre heures du matin jot ma doog a am nag wala ma doog am mis di bëri ba ñuy noddu fajar di takk sama ngëm ba sama ndigg bi damm jóge làmb bi jàll bee jóge bi demaat beneen sama ndigg dagg moo koy aasoon yu bëre nga may wax benn combat ni ma ndax di nga tiit loolu mënul nekk. Ada Fass waa Colobane Medina gépp ko indi gis nga keroog lu mu duy stade xale la boo xamante ni ku koy jël da nga koy jël avant combat wala bu arbitre ne mu ne la yem ma fii nga yem foofu ndi joor lay jiital de yow ban tànk ngay jiital. man de 120 kilos yi laa lay wax ni laa koy jaayanteel te ñoom ñoo may yem 120 kilos laa jàpp xeexloo ko léegi <laughs> barke sëñ Touba Mbacke yaa ngi pour mbooloo. ah man de dëkk bi ñu xool bi ma bëree man sama combat ak kii Zal Bambay barki dem nan laa def Ibamar. barke Serigne Touba Mbacke yi mbooloo bi sax yëmul amateur laa duy ak géttu boy bi. Sidiyaa ngi fi lépp fi kom neex nu génn bu dee wàllu mbooloo ma maa ngi koy bàyyi ak àttekat <laughs> waaw. ñu lay jaajëfal. waaw di leen kontaan rek. di leen bëggee bu baax a baax. di wax ni kontaan naa xam nga ci déplacé fi ngeen déplacé wu ñëw fii maa ngi gërëm sama gaa yëpp nag xam nga ay ñoom musa ñoom Omar xam nga sama yaay Fari sama yaay Yadda sama yaay bopp ji. moom moom yàlla na gudd fan rek sant waa Cambérène gépp ak waa Mbawar nag xam nga ñoom daawa be ñoom sëñ Omar Tafa Diop ñëpp aada Jokkel ak Kanté Kanté sama doom lay borom Italie maa ngi ziar ñëpp di ziar waa Nord Foire croisement Cambérène ak waa quartier Déggo bi di ñaan Sénégal yéen la fi yàlla def jàmm daal di leen kontaane yéen baax yéen a xam li ngeen bëgg yéen leen ko yàlla defal te mu jig leen ak jàmm ak doo gërëm sax fii ñu nekk salon bi. waaw salon ngi nii Oumy Thiaw xale bu pare bee waaw gis nga nit bi la ñuy toog asoo ngi ni si ginnaaw xale boo bëggee ma nga yóbbaale ko sax waaw après ma jox ko bàyyi jéeri mooy loolu ba du ñaay nii benn ancien gloire la si koñ bi rek fan sa mën loola mooy loolu mais di bëggee ñëpp rek di bëggee bu baax a baax baa jili kontaan naa ci déplacé bi nga def ñun ay mbër yu ndaw lañ defaguñ dara ci làmb ngeen ñuy génne ko ñun amuñ seen fay yéen a xam li ngeen bëgg leen ko yàlla defal parce que li tamit daal déplacé wu ñëw fii moon nga ni booy yi defaguñ dara ci làmb mais xool leen loolu lépp yéen a ngi topp suñu bànneex da ngay dugg ba ci àll bi gis naa la ngay dugg ci dini <laughs> xam naa léegi nga commencé yëg din ay Cheikh Tidiane ak Thié Cheikh gis nga ma ngay dugg ci ruq-ruqaan yi <laughs> mais kontaan nañ nag bari sëñ Touba kontaan nañ wér a wér a sant yàlla bu baax jullu ci yonent bi xam di gërëm suñu ñaari waajur yi bu baax a baax a baax di gërëm baalaat mu ndaw bada bee ñëpp maa leen ziar kontaan naa sama yaay yàdda sama ah. dama koy sant chaque jour kooku kenn la ci man moo tax yàlla na am jàmm jàmm ak salaam. ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni moom la booy Baol wax waaye nag dafa am loo xamante ni rëcc nañu sëñ Bas carrière Balla Gaye bi muy jug as Bécaye mbay suñu papa ñu koy ñaanal au yàlla na yàlla guddal fanam lool te mu ànd ak wér bokk na ci ñi nga xamante ne daan nañ ko jëli. ñun nag dañ fee nekk ngir mbër yi nga xamante ni bu ëllëgee ñu ne la kii bokkoon nañ ci ñi ko dékk micro booy bawol mi da cee bokk doon na koo xamante ni bu jugee Cambérène jóg parcelle gi jóg njaga mbay gi jóg ñëpp jóg ànd ak moom xale la boo xamante ni mu ngi def ay jéego bu baax a baax ci làmb mbokk yi ñu leen di tàggu tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci xew-xewu làmb jaajëf.